chers internautes ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci Sénégo TV tey ñu ngi dalal euh, Mamadou Gueye euh, mu di responsable Benno Bokk Yaakaar à Yoff euh, monsieur Gueye ñu ngi leen nuyu. ñu ngi lay fay suñu xarit. ok en fait xëy na peut-être avant ñuy dugg ci actualité peut-être dañuy wax tuuti ci défaitu Lions yi en tant que sénégalais aussi nag nga dundee défaite boobu noonu face à l'Angleterre. waaw xanaa di nuyu sénégalais yëpp rek di fier ci suñuy Lions yi nga xam ne dem nañu défendre nañu dignement mm. di bañ a balaa may xuus rek. di Euh, sargal suñu président Macky Sall ndax tey la anniversaire am ñu ko mm. ñaanal gudd fan ak wér ak yenn yi moom ci Sénégal yëpp mu mën koo mëtal xanaa di wax ne rek euh, démb Maroc wan nañu wane lu rëy ci ci ci réewu Afrique yi ci bu mag mu war a doxee ak ci gëm sa bopp ak pas-pas mm-hmm. ah jàpp naa ne am na bu ñu indi mooy dem nañ ba huitième final mm-hmm. waaye nag Lions yi mënoon nañu gën a am euh, résultat yi gën a rafet yi gën a baax mm-hmm. parce que boo xoolee premier pays africain bi ñun la ñun ñoo jël Coupe d'Afrique Euh, am nañu joueurs yoo xam ne ni permettre nañu tey ñuy békk à l'étranger muy club yu gën a mag yi nekk en Angleterre. Mhm. ñi di évoluer en France donc am nañu jumtuwaay yi warul mën tax sax ñu mhm. dépassé huitième de finale. Mhm. waaye sëgëm yàlla noonu la ko dogalee dañuy ñaanal Lions yi rek ñu gën a góorgóorlu te xam ne yii di ñëw. Ah, du ñeen baal nag. waaw du ñeen baal donc est-ce boo xoolee sénégalais yi jàpp ni peut-être c'est un problème de coaching wala yooyu aussi donc par rapport ak effectif bi ñu ndax indi nañu Coupe d'Afrique yàlla ci moom da ko dogalee waaye nag football tamit dafa am lu mu weesu football haut niveau la te haut niveau boobu dafa am lu mu war a àndal dafa war ànd ak ay ay jumtukaay yu bees ci wàllum technicité football daal jàpp naa ne xaw naa raw Aliou Cissé tuuti rek mm-hmm. waaw xaw na ko raw tuuti te Sénégal war nañ mën a gën a xoolaat aspect boobu bu fekkee lu mu war a jàngiwaat la mu jàngiwaat ko la bu fekkee lu ñu war a uti waat la ñu uti ko mm-hmm. euh, baal équipe muy dem di toogee huitième de finale ok mm-hmm. donc euh, suñu jógee ci loolu aussi peut-être ñu on va entrer dans le vif du sujet muy euh, politique un peu mm-hmm. mooy lundi mooy la Amadou Ba def déclaration politique générale donc en tant que sénégalais aussi en tant que membre de Benno Bokk Yaakaar lan mooy say attente par rapport ak déclaration Amadou Ba premier ministre waaw kon je que sax loolu man ci man c'est un non événement ci ci république ak ci tànneef bi nga xam ne président de la république moom la am ci moom confiance muy ministre Amadou Ba donc premier ministre mm-hmm. ñuy fàttali ne euh, constitution moo ko consacré ndax képp ku ñu tàbb premier ministre balaa juróom balaa ñetti weer war nga mën taxaw jëf euh, jëflanteeg assemblée bi wax leen. Euh, feuille de route bi li ngeen nar ak li ngeen bëgg a def mhm. tandis que gis nañ ne que marathon budgétaire yi fi jot a jaar dootu ministre yu mhm. euh, war wane ci seen bopp du lu dul lii du lu dul rek mhm. taxawaay bi nga xam ne ni président de la république am na ko te yéene na ko réew mi donc je ne pense pas que loo loo xam ne la dina compliqué wala dina indi lënt lënt ci ci bopp Sénégal mais say attente say attente en fait par rapport ak euh, liggéey bi ñuy war a jublu waaw ah, liggéey bi moom liggéey bu clair la euh, dañ ñoo fal ci juróomi juróomi juróomi at Ah, ñu ngi ciy góorgóorlu ko ba tey te jàpp nañ ne ñaari at yi di ñëw euh, phase terminale la ñuy nekk dañuy mm-hmm. finir les grands projets ba pare ouvrir aussi ouvrir aussi d'autres perspectives mm-hmm. li nga xam ne loolu daal la état di doxee mais ci mm-hmm. man du lu lu lu doy waar du lu compliqué du loo du loo xam ne ni daal war na mën a jommal Sénégal yi suba si li may xaar attente yi ma am suba mooy que Sénégal yi comprendre les projet du président ak tamit xam fan la fa la gouvernement bi di di di mujj ak ak bi yéenewu état bi. ok non mm. c'est vrai que aussi gouvernement bi ñu ko euh, tëralee yàggul aussi donc euh, peut-être euh, xëy na dina am ay jafe-jafe par rapport ak mise en place ak surtout ak temps bi ko desee mm. donc pour ñu egg ci mille vingt 2024. non man je je je ne trouve pas de problème si mm. man Amadou il est assez expérimenté pour pour se défendre pour défendre aussi le le gouvernement te boo xoolee niveau bi nga xam ne nii ministres yi euh, défendre nañ ci seen bopp ci marathon budgétaire ah, bi di nga xam ne que mm. équité daal suba dina feeñ ak tamit responsabilité surtout. Mm, ok donc euh, si si loolu sax aussi si euh, période marathon budgétaire bi on a remarqué un incident au niveau de l'Assemblée nationale gis nañ fi ay députés yi fi jot jotee donc au niveau de l'hémicycle ba jote xeex ba euh, dóor fi ku jigéen gaañ ko donc yooyu yëpp euh, naka nga jàngatee situation boobu en tant que waaw déjà di di ñaawlu di ñaawlu acte bi parce que jigéen moom kenn du ko dóor bu njëkk ñaareel bi mooy je pense que aussi li tax ñu yóbbu leen fa euh, jëfewuñu ko du ma ne nag ci benn côté kase la mhm. am na ay député yoo xam ne ci biir opposition bi ay jàmbaar nañu ay ñu am fula nañ ñu am fayda nañ aussi te mhm. ñu ngi défendre seen cause ak leen tax a ñëw assemblée nationale fàttali ne rek ni député tu es un député du peuple nekkoo député wu kenn mm-hmm. député peuple bi nga donc bu ñëpp jëlee seen i carte votel la ba nga dem fa mm-hmm. euh, parce que man président assemblée nationale war na mën a gën a am rigueur par rapport ak doxalin bi foofu ci biir mm-hmm. parce que warul nangu ko takk ay brassard rouge dugg ci assemblée parce que règlement bi nangu ko donc loolu waroon na ko njëkk a freiné loolu bu amoon bu ko njëkkoon freiné tey ñu dem ba góor yi te loo xam ne day doo jigéen su boo xam ne jàpp naa ne dañ ko tooñ ndax li ñu koy tuumaal wax lañ moom la wax Euh, dégguñu mu wax waxu benn wax bu ñaaw wala wax boo xam ne wax bu safaan la mm-hmm. ah ci suñu gis-gis ñun bu dee nekk ñu hypocrite bu dee dañoo dëggu bu dee yàlla rek nañuy waxal mm-hmm. dégguñu mu wax fa benn wax wala muy wax foofu tudd fa tur kenn mm-hmm. ci man di junj junj doy na borom xel waaw mais man même même borom bu ma doon journaliste man personnellement loolu amee dinaa génn leeral Sénégal yi ne leen kii tudd tur kenn donc su fekkee ne en matière de droit li ñu ko def moom dañ koo tooñ tuddul tur kenn dafa junj li muy junj waaye nag moom ku ku ku moom xar bi nga bàyyi bu mu yooyu tamit dafa nekk loo xam ne lu doy waar la. si diggante boobu aussi eh, dugal auto séjour ak yooyu yëpp aussi. waaw ñooñu ñooñu yoon dafa war a dal seen kaw. Mhm. war nañ leen jël bon bu doon maay président assemblée nationale boobu noonu balaa ñuy génn assemblée bi ñooñu nañ leen teg loxo ci li ma jàpp. Mhm. parce que lu ñu def c'est extrêmement grave ci biir assemblée nationale nga yëkkati loxo dóor jigéen en tant que góor nga kë jigéen loolu waroo fanaan sa kër man je pense ñooñu dañu war a jël àtte leen pare dindi ndombal tànk député bi ñeen jox ndax mérité wuñu ko waaw ci foofu du bërëb bu làmb bu dee bëgg a làmb mën nañ dem CRG utal leen licence boo xam ne pour xeex la wala pour wala pour xuloo wala bu dee xuloo dafa am mu nekk xuloo bu positif mhm. boo xam ne intérêt Sénégal la seen lekk seen naan seen dundin mhm. mais tey je ne suis même d' ministre de l' du ñëw ñu koy wax waxu élevage ministre de la justice ñëw ñu koy wax waxu waxu intérieur donc loolu yëpp rigueur boobu yëpp président assemblée bi nag sañ-sañ bi ko yoon jox war na bàyyi maslaa bi nag di doxal di doxal li nga xam ne nii loolu ko charte réew mi may muy muy mu yor le maintien de l'ordre ci biir assemblée bi mm-hmm. yor police bi di ko doxal ku war a génn mu génn ku mu war a sanctionné mu sanctionné la parce que foofu nekkul milieu boo xam ne nii milieu caaxaan la ok donc euh, ñu fàttali que euh, responsable Benno Bokk Yaakaar au niveau de Yoff nga donc euh, si local yi passé aussi nekkoon nga fi candidat mm-hmm. donc nekkoon nga fi candidat si demoy nga fi liste mm-hmm. lan moo est-ce que mën nga ñëwaat ci li waraloon loolu waaw bon dem demoon nañu élection locale euh, amoon yéene pour defar suñu gox ndax acteur politique boo gis rek yéene mooy defar goxam ak fi mu dëkk surtout bu ko ci ràññee euh, ñu demee liste Sénégal 2035 bu ñu ci demee suñu borom dogal ki fàllu foofu maire nii nekk ci opposition bi ci kuje mm-hmm. euh, yi mu nekk loo xam ne aussi regretté wuñu ko parce que tey en terme en terme de sympathie am na fu ñuy yóbbu tamit fu ñu ñu dëkkal xam nañ ne que mérité woon nañ nekk maire li may faral di wax rek naan nit ki moom euh, boo demee ba àgg ci dara ba war koo nekk nga nekk ko yàlla koy def waaye fexeel ba ñëpp xam ne mën nga koo nekk. Mm-hmm. loolu am solo donc bu ñu ci demee on a assumé nous nous étions euh, partis pour gagner euh, appareil bi fa nekkoon nekk appareil benn boo yaakaar mu ñu jàpp ne que période boobu noonu mënu ñëwoon ànd ak ñi fa ne waaye yàlla dogal na dem nañ ñu. ñu ñàkk ñoom ñu ñàkk ñu boolewaat suñu doole pour mën a dem conquérir le pouvoir. et, ah, conserver le pouvoir aussi. ok dem dem ngeen de façon dispersée mais est du loolu aussi moo andi seen perte au niveau de Yoff. waaw ndax bu ñu waxee dëgg rek xam ne ñëpp bu ñu àndoon euh, coalition Yewwi Askan Wi am na percée boo xam ne du ko def au niveau de Dakar. Mm-hmm. waaye nag comme que nag euh, ambition yi bokkul gis-gis yi bokkul te ñëpp tamit war waruñu mën a ànd te damay mm-hmm. faral di wax naan. Mm-hmm. ñu a bokk gis-gis warut warut tax ñu jàppee suñu bopp ay noonu. waaye nag ko ñoon gis-gis ci jamono jooju ñu ci jógee en tant que responsable le président de la République a fait appel à tous les responsables de Dakar au niveau national waxtaan ak ñëpp mm-hmm. xamal leen ne que ñun ànd moo ñu jik parce que du ñu bëgg a def mooy euh, conserver le pouvoir dafa am lu muy laaj ak lu muy àndal te foog ñu àndandoo ñu ñëpp leen benn say mm-hmm. boole xol yi waaw mm-hmm. donc actuellement mën nañu jàpp ni si diggante boobu euh, législative yi ñëw nañu donc euh, muy yow Diouf Sarr après ak aussi yaa euh, récemment aussi Pape Mao Diouf mm-hmm. donc yéen ñëpp booloo ngeen ngeen liggéey si législative yi aussi. waaw gis nañu résultat yi. booloo nañ pour l' intérêt de Yoff pour l' intérêt de la nation booloo pour l' intérêt aussi de la de coalition. da mm-hmm. tey lépp loo xam ne day affaiblir coalition bi ñun. ku ci nekk suñu waroo cee dox donc ànd dañu ku ci nekk liggéeyal sa bopp. au niveau de la pour que président de la benn victoire bi au niveau national. ok mais mais récemment aussi on a vu que Pape Mawa il a fait mhm. donc récemment mais gis nañu aussi yow sortie boobu dafa mel ni àndoo ci. donc euh, te woon si diggante bi aussi def nga fi benn conférence de presse pour dénoncer loolu lan moo waraloon la àndoo ci sortie boobu fa. waaw dooy fàttali rek ne Pape Pape c'est un ami c'est un frère mais euh, politique euh, heure bu nit dóoree politique rek yow da ngay yow koy tontu politique. Mhm. parce que ñuy def ni politique la am ñu yaakaar am ñu nees ginnaaw. bu ñu jógee ci benn dynamique euh, yàlla dogal ñu dem législative yi am plus de dix mille voix au niveau mm-hmm. du département de Dakar mm-hmm. ñu war a ànd war di diisoo war di waxtaan mm-hmm. je pense que njëkk a génn def yenn sorti di wax naan que ñun euh, dañoo war a dañoo war a jug dem à la base waxtaan nit ñi day mel ni comme ñun am na liggéey boo xam ne nii war nañ ko def te defuñu ko moo tax bu ñu ci waree génn génn nañu tontu ko xamal ko ne li gën a rafet li gën a jaadu gën a baax mooy que mu wax ak ñun ñëpp ku ci nekk yenn responsable te ñi tax ñu naan responsable di jàppale président de la république mhm. mhm. a woote woote yu mel noonu. kon da nga jàpp daf leen beddi période boobu. pas beddi yow ak waxtaan mënoon na gën am mënoon na gën a am que euh, kaddu benn boyakaar bi génn au niveau am na ñoo xam ne wax dëgg yàlla war nañ leen ci boole. Mhm. ba am ci seen kaddu ba am ci seen gis-gis balaa ñuy génn def benn communication. pour pour la commune. donc ci diggante boobu aussi comme on peut dire que ni vous êtes en train de préparer peut-être euh, troisième mandat comme wala ñenn ñi comme ni ñu koy waxee un second quinquennat waaw mais pas pas un troisième mandat dañ nañ def loo xam ne rek euh, yoon maye na ko ah loo xam ne nii état de droit nangu na ko loo xam ne constitution tamit joxe na ko te it je pense que Sénégal foofu la war a toll du benn nit moo war a tere keneen pour dem élection mhm. benn nit moo war a xoxatal nit pour pour mu dem élection mhm. ci li ma jàpp mooy euh, buñ ci tollee incha allah rabbi ñi nga xam ne ñoom ñoo war a saytu constitution bi ñi nga xam ne sont les juges constitutionnels mm-hmm. dinañ ci saytu dinañ wax ndax euh, président Macky Sall d' ndax bëgg na dem élection na waxagul ne bëgg na mm-hmm. deuxièmement ñu xool ndax il sera éligible ndax mën na bokk ci ñi nga xam ne mën nañu xëccoo ci loolu bu amee rek yi des responsabilité lay nekk te ñi war a ànd ak moom ci combat boobu nañ ci ñu waaw contexte yi jàpp naa ne du benn waaye tamit euh, sénégalais yi daal ñooy tànn sénégalais yi ñoom rek ñoo mën a fal njiitu réew ñoom ñooy tànn kan moo gën ci seen réew mm-hmm. damay faral di wax rek naan njiitu réew bu ñëw dafa am ñetti phase mm-hmm. phase conquête du pouvoir mm-hmm. te bi mu ci tollee def na ko mu toll ci phase exercer le pouvoir te bi nga koy jéem a def ndax tey Sénégal bokk na ci réew yu gën a ràññeeku ci àdduna bokk na tey ci réew ñu gën a respecté ci àdduna tey soo tey génn fii rek génn Sénégal tuuti dox tuuti dem voyage di nga xam ne que Sénégal yi am na estime bu ñu am ci moom du point de vue politique du point de vue économique. Mhm. léegi nag beneen moo des aussi mooy le président de la République beneen beneen devoir mu am muy le devoir de transmission. kan la war a bàyyi réew mi moom am na ci responsabilité. Mhm. ndax réew doo ko defar ci fukki at wala euh, fukki at ak benn dem bu mu desee lu dul sa mandat jeex nga war a bëggaat. Mhm. war a nga keneen war a ñëwaat yor réew mi te doo xool bu baax a baax ci yan loxo ngay teg li nga engagement internationaux yi nga jël. Euh, su le plan diplomatique fan la réew mi toll donc yooyu yëpp ay paramètres yoo xam ne la am na ci responsabilité moom. mais tey jii supposons le président Macky Sall tey jii ne woon du présenté wu donc ban profil nga gën a gis parce que boobu ba léegi aussi ñu ngi wax waxu dauphin te ba léegi gisaguñu amaguñ lu leer que ni ki ko war a remplacer donc est-ce que jàppoo ni tey jii su demoon ba décidé du présenté wu que jot na mu génnee ki ko war a remplacer surtout ak contexte bi ngeen nekkee dans une coalition muy nga xam ne AFP mu ngi ci euh, parti socialiste mu ngi ci mm-hmm. donc euh, est-ce que xalaatoo ni aussi du am jiixi si si au niveau au niveau de votre coalition waaw waaw man de ci man ci li ma jàpp wax dëgg yàlla euh, gisuma ku mën a porter suñu combat fu mu toll nii à part président Macky wax dëgg yàlla waxuma a kuy gañee kuy gañee ci loxo yàlla ne mais ci biir coalition bi gisuma koo xam ne courage bi war wala doxalinu politique bi am. Mhm. bi bi war amagum na ko pour mën a porte pour mën a porter benn combat fi mu toll nii te tamit je pense que temps bi xam na lool pour di choisir keneen mhm. pour mu dem élection. donc moom rek nga gis. moom waaw su fekkee dañuy wut profil au la coalition objectivement. Mhm. gisuma beneen profil bu gën président Macky Sall. ok donc euh, monsieur Guèye euh, concernant l' affaire Sonko Adji Sarr danga nga jàngatee situation depuis le début ba léegi. ah comme li ko Sénégalais yi yëpp gisee rek comme ñun moom ay sénégalais nañ ñu observé gis ne ñaari sénégalais ñoo am problème kenn ku góor kenn ku jigéen ku jigéen ku dem plainte ko pour pour viol ah, répétitif. ah ñu woo leen yoon di doxal liggéey moom di loolu laa ci gisugum yoon leen woo ñu ngi wax ñu kee déglu nañu ko dans le fond Adji Sarr déglu nañu ko dans le fond def nañu confrontation mm-hmm. léegi nag peut-être juge d'instruction bi pareegul li muy li muy li muy liggéey peut-être yeneen confrontation sax mën na am bu paree nag moom dina leeralal Sénégalais yi xool ndax dossier bi da koy renvoyé ñu àtte ko mm-hmm. wala ndax day defal Ousmane Sonko noolu mais est-ce que jàppoo ni aussi c'est une cabale politique contre un par rapport ak parce que mais si suñu jàngatee sa kàddu tout de suite euh, mën nañ jàpp ni que da jàpp ni c'est une affaire privée mais une affaire privée bi nga xam ne dafa jël benn ampleur nationale donc euh, est-ce que mënuñu jàpp aussi c'est comme ni ko opposition bi jàppee aussi euh, c'est nekkul cabale politique contre un leader. waaw c'est c'est normal parce que Ousmane Sonko aussi euh, ñu waaye tamit jàpp naa ne am na envergure nationale. Mm-hmm. yor na parti politique donc lépp lu mu def rek automatiquement day am répercussion le plan politique parce que moom li mu mën a def tey. li mu mënta def li mu li nga xam ne mën nañu ko mën nañu ko am na loo xam ne mënuñu ko baal Ousmane Sonko ci bépp bor c'est-à-dire mënuñu ko baal mu dem fu ko neex mhm. muy def lu ko neex muy wax ak ñu ko neex parce que dafa dem élection am plus de 15 pour cent Sénégal yi am ay Sénégalais yoo xam ne jox nañu ko seen voix mhm. donc tey lu mu def rek day am impact politique mais impact politique bi taxul ñuy wax ne complot la wala leen ndax euh, moom fa mu dem sur le plan de la responsabilité moom moo fuy boppam mhm. waaye rek la fa am nag yàllaa ko xam man du ma ne nit def na dara fekk ne alors que awma benn benn preuve bi war ni diw def na dara donc je ne le jamais. parce que sama maanute. sama mhm. maanute. mayuma may may tuumaal nit. Mhm. wala ma naan diw def na dara waaye mhm. dama ne ci le plan de la responsabilité Ousmane Sonko. na bañ a dem bu fa demoon bu fa demul woon du ñu wax ne sa complot am na. ah ndax am na foofu fooy àgg yow yaa mën a yàqal sa bopp. kenn mënu laa yàqal mun na fa woon bañ a dem aujourd'hui nag woon nañ leen juge baa ku ci nekk la nga yor pour def une manifestation de la vérité te je pense que ci liggéey boobu la nekk ndax ñu ngi woo gars yi benn benn mais personnellement naka nga jàngatee affaire bi office ndax complot la am du complot que mën nañ gis ni parce que soo xoolee par rapport ak euh, PV PV yi donc par rapport ak aussi euh, rapport interne au niveau de la gendarmerie foofu bi ta bi bi waral sax euh, entre guillemets ba ñu jàpp ci Pape Alé mhm. donc personnellement est lan moo si sa jàngat ndax complot la wala du complot waaw wan wax dëgg gisuma gisuma gisuma dara yi manipulation am na ci ñaari côté muy ci côté May Adji Sarr ak ci côté Ousmane Sonko ku ci nekk a ah, wax nga ay wax yu incohérent mm. maanaam foofu laa ne ku ci nekk dangay wax lii tey su ba nga wax lële waaw ah, donc aujourd'hui li ci am solo mooy am na juge bi ngi dénk dossier bi mm-hmm. juge boobu mi ngi leen woo di leen déglu bu paree nag ah mu xool na Ousmane Sonko dina dem dinañ ko àtte mm-hmm. wala ñu bañ wala duñ ko àtte mm-hmm. leen am na su fekkee ne dafa def ordonnance de non lieu mooy bàyyi nekk mu ñibbi jàpp nañ ne ko deful dara wala loolu jàpp ne kii deful dara bu fekkee nag dafa renvoyé dossier bi mooy Ousmane Sonko da dem kaso parce que bu génnee ordonnance de renvoi rek Ousmane Sonko du fanaan këram jour boobu parce que kenn du comparaître euh, ci chambre chambre criminelle en état libre mënul nekk waaw bu dee def ne Ousmane Sonko euh, renvoyé nañ dossier bi bés boobu na Ousmane Sonko du fanaan këram parce que buy dem procès mënul jógee këram dem fa ok donc euh, ñu ñëw tuuti aussi par rapport ak arrestation bu Pape Alé donc ci moom it il Euh, ñu si ëpp ñu ngi naan c'est à c'est de euh, du dossier Sonko Adji Sarr wala surtout par rapport ak euh, rapport d'enquête boobu mu génne woon donc di di di ci génne ay pàcc di expliquer Sénégalais yi donc si c'est la si période boobu lañ ko jàpp donc ñu bëri ñu ngi dénoncer lool donc yow par rapport ak loolu aussi donc lan moo ci sa xalaat waaw bon Pape dañ dañ koy massaw comme yeneen Sénégalais yi ñuy massaw rek ndax suñu morom jurit la ñu ko kaso yéeruñu ko ñu jàpp ko mm-hmm. yéeruñu ko lu waaye tamit yéen liggéey bi ngeen nekk dafa am charte dafa am lu ko tënk mm-hmm. mooy am na lu leen yoon may muy yoon may na leen ngeen dem uti bépp information bi nga xam ne mën a leeral Sénégalais yi ndax loolu mooy seen liggéey mm-hmm. waaye tamit yoon tamit dafa leen am lu leen tere que loi lépp mu la may mm-hmm. na foo yem parce que liberté sa liberté dafa am fu mu yem mu xamal leen ne yéen mën ngeen uti seen source fu nekk waaye li ñuy wooyee ay secret de l'instruction lu ñuy wooyee ay secret yu bari dañ leen interdire ngeen def ko te loolu je pense que article 5 de la presse te it mu wax leen tamit même bu fekkee ne def ngeen euh, erreur sur une déclaration article 15 du code de la presse permettre na ngeen génn def démenti bi war ngeen wax ne da ngeen juum mm-hmm. Pape Alé nañ fàttali ni waxoon na dossier Auchan li président de la ak njabootam am nañ ci pourcentage mm-hmm. ñooñu génn def bi mu nekk li nga xam ne lu extrêmement grave la woon mënoon nañu ko ci jàpp mm-hmm. waaye bii nag du du affaire de politique procureur moo bind euh, un réquisitoire introductif au juge d'instruction nekk Pape Alé mi bu mu bu mu ñibbi këram waaw dañoo visé article yoo xam ne Pape Alé mënul fanaan këram parce que boo heure bu ñu toppee division de fausse nouvelle rek déjà mënoo fanaan sa kër parce que yoon da tënk. Mhm. ba pare procureur dem jëli article 139 bu code de procédure pénale pour wax ne ko ci tenu de de le su sous mandat de dépôt donc nag li nga xam ne moom nañ ko jàppee yépp amul leen loo xam ne nii mhm. euh, jéggi na yoon lépp tegu na ci yoon. léegi nag di ñaan nag yoon tamit bu ko mënee euh, bu ko mënee gën a gën a gën a gën a jàppale rek ndax dégg naa am ñu grève de la faim. Mhm. moom mu ngi grève de la faim actuellement même il est placé dans une clinique donc euh, état de santé gars yi ñu ngi koy ñaan daal jàmm mm-hmm. waaye tamit réew moom euh, mënul dox te du ànd ak charte mm-hmm. mënut a nekk donc jàppoon ni aussi en tant que journaliste aussi donc euh, devoir am nekkul woon aussi mu génnee leeral sénégalais par rapport ak rapport d'enquête boobu nga xam ne ñu bëri xamuñu ko woon waaw bon devoir journaliste mooy informer juste et vrai mm-hmm. waaw mooy li nga xam ne looy wax rek na nekk loo xam dëgg la te it du compromettre dund nit ñi ndax je pense que nit am njaboot am papa am yaay am ay doom am jabar mhm. génn di ko waxal lu la neex di ko jiiñ ay mbir yooyu war nañ koo dépassé. non mais ba léegi gendarmerie ñoom it euh, weddi wuñu rapport d'enquête boobu. waaw mais journaliste journaliste euh, les gendarmes ne sont pas des politiciens. Mhm. amuñu temps génn ci télé ak rajo yi di wax di communiquer li nga xam ne mooy war nañ ko def mooy leur responsabilité mooy lu xew rek. Mhm. ñu saisiru mën a xam dëgg fan la féete bu fekkee ne la ñu wax. ndax dañ ne la même bu fekkee ne sax am nga information ci arab muy dëgg amoo droit génne ko. Mm. ah waaye loolu parce que armée mooy yor kaaraange. mais su nekkee dafa war mën a permettre aussi pour euh, mu tudd sa leeral sénégalais si benn dossier. non secret réew ak charte réew ak li protéger réew du lu ñuy wax ci télé. ok du lu ñuy génnee ci ci ci ci média erreur boobu la Pape Alé def. Mm, ok waaw. Mm. donc lan nga jàngatee situation Pape Alé donc d'une manière générale. waaw dama koy comme comme comme yeneen dossier yi muy demee rek. woo nañ ko déglu nañ ko dans le fond. demande na liberté provisoire procureur euh, bi. astafurlah waxagul waxagul waxagul hmm. waxagul lu leer ci demande de provisoire bi hmm. def mais en principe aussi képp ku ñu toppee li ñu ko toppee moom boo demandé liberté provisoire procureur opposé wu mënuñu la bàyyi nga ñibbi waaw hmm. ah, moom affaire bi xaw a délicat daal ok waaw ah. ok récemment gis nañu aussi euh, benn situation bu xaw a doy waar bu fi jot a xew donc la disparition de deux gendarmes donc euh, ñu bëri ñu ngi andi euh, ay jiixi jaaxa par rapport ak seen disparition donc xaw na jaaxal ñu bëri aussi donc loolu situation boobu nag nga ko par rapport ak non seulement réaction armée réaction population bi ak réaction surtout aussi eh, de nos autorités. waaw man loolu moom nekk na lu doy waar loo xam ne nag war nañ ci taxaw xool bu baax a baax a baax li waral loolu parce que nag eh, ñi nga xam ne génn nañ fi àdduna ñooñu du ñu n'importe qui si si armée mm-hmm. ah, nekk ay homme de loi nekk ay homme de tenue ñooñu. seen disparition war nañ ci gaaw a leeral Sénégalais yi mm-hmm. ndax am nañ jumtukaay yu war a mën tax mbir bi gaaw mm-hmm. ah gis nañ ni procureur def na communiqué pour wax ni yan condition la ñoo ngi demee mm-hmm. te je pense que am na corps yu ñu ci jot a retrouvé comme que ñoom ñu ci enquête ah nañ déglu fii ak fan rek jàpp xool ba xam fan la enquête bi ci mujj waaye ak ci li ma jàpp responsabilité état ak responsabilité système judiciaire bi mooy que ñu indi éclairer la lanterne su sur les zones d'ombre de cette disparition loolu moom lu am solo surtout conditions yu demee. waaw lu lu lu doy waar loo xam ne daal war na ci taxaw def ko nag farat waaw mm-hmm. donc surtout par rapport réaction armée bi aussi boobu léegi euh, ay seen éléments yu kii euh, ay seen c'est des éléments de l'armée en fait donc ñoo disparaître ah. donc kenn kii retrouver nañ ko donc boobu léegi aussi xawul ak jaaxal par rapport ak euh, réaction kii les supérieurs aussi waaw pourtant loolu laa la wax ne la xam nga mbiru mbiru mbiru gendarmerie mbiru mbirum armée mm-hmm. lu lu sensible la ci dëkk mm-hmm. te je pense que am nañu jumtukaay ñoom ñu war a mën tax ñu wax nit ñi yan yan condition la ñu gis ba lettre loolu moom lu Sénégalais xaar la. waaw mhm. ah, jaaxal na ma trop ci nu mu demee noonu lu bizarre la daal. lu xaw surtout ñu ngi ngi andi corrélation entre euh, l' affaire euh, Sonko Adji Sarr affaire Pape ah, Alé loolu moom ci man ci man ñi manipuler ñu koy wax. ndax ñoo xam ne nag dañuy toog ci internet bi chaque jour di wax loo xam ne nii euh, mhm. mën na bañ a nduru dëgg mhm. waaye li mu am solo mooy nañu wóolu suñu armée wóolu suñu système judiciaire xool ba xam enquête bi fan lay fan fan lay mujj di wax ne rek dafa benn parti ci réew mi ñoo xam ne nag dañoo mën a manipuler te it seen rôle du loolu mooy la société civile muy ñu mel ne ñooñu war nañ xoolaat seen bopp baax baax xam lan mooy seen mission ak euh, lan mooy seen but ak lan mooy seen finalité ndax réew boo ci nekkee da ngay ñaari parti yépp képp ko ñàkk dëgg nga xañ ko dëgg waaye bu fekkee nag ci lu nekk rek dañ génn di ci feeñ mm-hmm. muy am coloration politique balaa càag nga dem jënd carte membre nga dem fari pé benn parti waaw ba président Macky Sall falu tey ji waaw mais entre entre temps boo xoolee ñoom jiñ nañ ñu bëri sàcc te ci ñoom jàpp nañ ci aussi ñu bari ci ci mbir yoo xam ne daal du rafetal deru doomu aadama mm-hmm. donc je pense que nit ki balaa ngay balaa ngay tuddee kenn sangu day fekk yow nga sangu ba noppi mm-hmm. ah, balaa ngay wax kenn éthique wala ngay wax kenn di ko jéem a moraliser war nga koy jéem a yedd day fekk loolu mu nekk ci yow ba pare. donc ñu fàttali que euh, tey Modou Gueye lañ dalal euh, bu nekk responsable benn bokk yaakaar au niveau de Yoff euh, lan mooy sa kàddu gu mujj monsieur ah, moom. kàddu gu mujj émission bi waaw kàddu gu mujj émission bi mooy sant sénégalais yi ah, gërëm la yow bu baax a baax ci opportunité bi ñu permettre tey ñu mën a échanger ndax lu ñu bëggoon la far yàlla dogal ma tukki woon mm-hmm. ah, di massaw rek ñi décédé ci yoonu Linguère bi ak ñi décédé ci yoon Touba bi démb di leen ñaanal suñu borom xaar leen àjjana di ñaawlu aussi li xew mbuur mm-hmm. waa ji jël rey ñetti nit dóor ay nit blessé leen ñu jël ko yóbbu ko je pense que loolu lu yomb la mhm. ah war nañ gën a xoolaat bu baax a baax gën a strict ci problème sécurité bi waaw si waaw euh, Sénégal ci mhm. sécurité Sénégal parce que dafa yomb trop nga jël nit bu am njaboot mhm. am soxna am ay doom nga jël rey ko bu pare dem tëdd kaso donc yow yaa xam nga sax fi nga nekk mu yaayee kaso waaye kee yaakaar nga ko loo xam ne nii lu kenn mënu koo réparé donc euh, nag nit yi gën a gën a gën a gën a juboo seen biir gën a yéenante jàmm dañuy gën a bëggante nit di gën a jàppante nañ xam ne Sénégal ñëpp ko bokk nañ xam ne ñun ñëpp bokk famille politique bu mu tax ñuy waxante lu ñaaw wala ñuy defante lu ñaaw parce que li day jeex mm-hmm. lu daal mooy loo xam ne bëggoon naa ko lancer pour les sénégalais ak pour les internautes de Sénégal. ok ñu ngi lay jaajëfal jërëjëf euh, sëñ Xalil la